mooy ñu yokk suñ pësteef rek lancer population bi lancer nit ñi itam ni nañ bàyyi xel ci sëñ Mountakha li mu waxoon ak sëñ Mame Thierno mooy ñi fi nekk di contre sëñ Touba bu sëñ waxee ñu teg ci baat nañ waaj ñi nga xam dañ fee yor ay xaalis bu dul jeex te boo juma jotee ñu dem Mbàkke jullee ji fa bàyyi jumaay sëñ Touba yi ni ay sëg la nañ waaj ñi nga xam ne ay yàlla yàlla lañ ak ñeneen ñi nga xam dañuy jéem a favoriser ay terrorisme yëpp nañu waaj dëkk yi moom ku mën a ku mën a seetaan sëriñ bi ak jumaa ji ni doo fi jullee te moom mu nattub dëkkam mën nga ko fee war a bàyyil dem feneen loolu tam <coughs> am na waxtaan yuñ ci waxtaan ak sunu jëwriñ sëñ Moustapha Mbar ndax xam nañ pësteefam ci liggéey sëñ Touba ak yeneen kilifa yoo xam ne ñu ngi nas ay nas yoo xam ne la ca war danañ ko def daa loo xam ne duñ ko wax waaye am na point stratégique boo xam ne danañ ko def léegi nag ñu ngi leen di xupp ñu ngi leen di menacé yéen ñëpp ñi nga xam ne yéen ngi koy def nëbbutuwuñ xam nañ leen xam fi ngeen dëkk danañ ko faj wala bu ngeen ko mënta bàyyi ngeen dem feneen sañ ci fa defe ko fa rek loolu mooy message bi.